fii si mbaarum daaru xuddoos la ñu amalee lii nga xam ne moom la ñu tuddee cérémonie officielle bi nga xam ne moom la ñuy màggal ñibbi si Cheikh bam ba fii si dëkkam bu sell bii di Touba. te loolu ñu amalee ko si kilifteefug Cheikh Ahmadul moxtaar Mbàkke bi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mouhamadou Moustapha. si ndaje moomu ràññee nañu ne gouvernement gi am nañ fa teewaay bu mat si bopp ba ministre Aly Ngouille Ndiaye moom mi nga xam ne ànd na ak délégation bu xaw a takku bi nga xamee ne nag jël na kàddu sëriñ xaadim silla def na benn discours boo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko te defee ko ci turu waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha yëpp te si biiri waxam it mu fàttali li nga xam ne mooy njariñul bis bii li tax Cheikh Mouhamadou Moustapha tànn ko li tax Cheikh Mouhamadou Moustapha moom tànn bis bi sëriñ Touba ñibbisee Touba di ko màggal yett yëpp la ba ci jëkk moo di ñibbis ak sëriñ Touba ci bis bi ci dëkk bi nga xam ne moom la gën a bëgg ci mboolem pàkk yi am ci kaw suuf ñaan gu muy ñaan yàlla mu defal ko bis bii mu ñibbisee Touba doon bis bi gën ci mboolem ay bisam waaye ñetteel ba nag moo di Seexal Xadim dafa taalif xasiida bu mag boo xam ne daf caa digal xam la ca ne màggal ak fàttaliku génnuk àdduna nitu yàlla ku mel ni Sëriñ Touba warugar la ci bépp jullit sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu sëriñ Abdou Khader moom mi nga xam ni moo yor kàddu sëriñ bi bi mu jëlee kàddu wax na bu baax li nga xamee ni moo nekkoon dund ak yitte yi mag ñu tedd ñooñu. Cheikh Mouhamadou Moustapha ca fidwa ak njàmbaar ga ak dogu ga ak xam sëriñ Tuubaa moo fonde yoonu murit ba tey mu agsi fii tey kon ku gis yoonu murit tey fi mu àgg fàttaliku. lopp juróom-ñett fukki at ak ndàngam ci ginnaaw ba muy xalaat tey dëkk Touba di xalaat titre foncier bi di xalaat fondement jumaa ji mu toll kon ku ne dana xam Cheikh Maodo Moustapha na ko suñu borom maye woon ba siiratu mooy gisu xol ak xam fi àdduna jëm ëllëg. ministre Aly Ngouille Ndiaye moom mi nga xam ne moo jiite délégation gouvernement gi ay ñaan la ubbee ay waxam ngir li nga xam ne moo di liggéey gouvernement gi mën a ànd. sëñ Amadou Makhtar Mbacké ñoo ngi sàkku ci yow ak ci mbooloo mi nga dolli ñaan ci réew ndax moom réew mi lañu am moom lañu ñu bokk ñu ñépp ki fi yàlla jiital ci réew mi muy président Macky Sall jàmm la bëgg ci réew mi yàlla na ci yàlla dolli jàmm si jeexanteelu ndaje ma sëriñ ahmadul muxtaar mbàkke moom mi nga xam ne mooy xalifa mooy xalifa sëriñ mouhamadou moustapha mbàkke moo jël kàddu daal di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo fa teewoon ñëpp waaye jiital si santam cheikh sidil muxtaar mbàkke xalifa général des mourides sant waa kër sëriñ tuubaa gi yëpp sant mbooleem taalibe yi ñi nga xam ne mooy ngóor